o tasul assemblée nationale France. Hmm. lu tax mu tas ka. géopolitique. certes loolu mooy la profondeur mais dans la forme pourtant le parlement français am na pouvoir bu toll noonu presque mais day am fu moo toll foo xam ni dëkk bi nag moo soxla. Hmm. li xew nii par exemple en France ñu ne la kat rassemblement rassemblement national ñu ngi ñëw ak doole la ca des mais boo xoolee ba ci suuf tubaab yi jamono bi ñoom ñëpp ñoo bokk xalaat nii ñuy toogee fii Sénégal naan nationalisme la noo woote Cheikh Oumar Diagne moom laa woote nationalisme boobu pourtant moom la tubaab bi di woote. Ah, ne ñu nous voulons notre nous voulons notre France à nous. et à juste titre. léegi lu mel noonu su dee am. nga toll fenn fi président bi am capacité wu jël décision ci assemblée ba la même président bi nekk fii Sénégal à la capacité bu ñu tollee fenn fi jiixi jaaxa ñu ne ah la délégation du pouvoir bi nga xam ni peuple moo ko dénk nit kooku nag moo dee président bi mesure sàngam exceptionnelle mën na ko jël tey assemblée nationale bii ñuy wax ni ak li coow li bëri bëri diggante article 87 ak 52 la ca nekk ak woy il faut que deux ans yi mat patati patata bu assemblée bi amee comportement de gang de bande à un moment donné lan ngaa def dan kaa tas di wut nag ay rouage ak moyen pour teg ko ci justifier que loolu justifie lu tudd justification. Hmm. mais boo amul choix daa ko tas te ki nga mën parce que cette assemblée elle est plus légitime. du tout donc man jàpp naa ne conseil supérieur de la magistrature. république des juges mënul am fii de. gars yi c' est impossible. benn ci quelque quelle que soit dose de banditisme bu ñuy am à gauche ou droite. te la taxoon loolu sax di war a mën a am. dafa am fu mu war a jóge te loolu new fi. Sénégal duñ ko nangu sax. et puis et le nombre de magistrats également 510 magistrats. si peu pour 17 millions d' habitants. trop c' est dafa tuuti yi boo xoolee les magistrats de siège. dañ ciy compter presque mhm. matul 300. Mhm. genn ci organisation yi. Mhm. soit ñu yéege ay ay CD. de dépôt et de donc. xam nga xam nga malheureusement en Afrique. dañu jëloon ay poste entouré ko benn mit boo xam ne ñooñu kenn du leen xool kenn du leen yëddu kenn du leen yërndu ñoo def exprès pour que ñu war ñu bëgg xamal nit ñi dans la conscience collective ne du n'importe qui moo war a nekk magistrat mais xoolal le pouvoir du procureur c'est trop et puis suufu géejewaay bi ko jox ko jox magistrat yi. waaw nañ ko retiré ils ont plein de cités. Ah? ils ont plein en réalité. mais magistrat ñaar bëri magistrat 534 magistrat cité magistrat mais foo tourné la cité magistrat. donc magistrat yooyu yëpp. ab <laughs> Ablaye Wade est venu yokk seen indemnité. alhamdulilah mais man jàpp naa ni Sénégal bu ñu toll république des juges mënu fi am il faut juste que par rapport à ces assises là ñu xool la conseil supérieur de la magistrature ñoom ñi nekk spécial du droit nan la ñuy def ba am mu am limite entité bu mu mënti doon dans ce pays là dafa am mode de fonctionnement boo xam dañ kaa tegal ay barrières barrières yooyu nag bu ñu ko tegee bu ñu tënkee lépp ba pare am na kenn ku nekk ci bopp bi kooku moo dee président de la république bu ñu eggee fenn fi am na possibilité ne on écrase parce que gars yi dañu bëgg a dem fenn foo xam ni jaaduwul c'est tout. <laughs> soxna Amina. <laughs> waaw Pa Assane ba tey damay des ci yow. <laughs> parce que li ma la question bi ma lay laaj mooy aspect yi nga xamante ni indi nañ ko est-ce que dinañ ko respecter ci dele bi ak seen promesse tamit est-ce que dinañ ko respecter mooy li nga xamante ni moom la ñu waxoon sénégalais yi. ñan euh, euh, démb li nga xamante ni moo amoon ci assises yi amoon waaw waa waaw xam nga tout dépend de ci ban contexte lañ la ñu organiser mbir mi. ak lu tax ñu organiser ko yaakaaruma tey nguur bu bees bi hmm. dugg ci gaamu teg dara ba pare ñu dawal tuuti gars yi ne ah. dara de ndekete ñoom seen ay wax mooy loolu. Hmm. à entendre monsieur Sonko le premier ministre tout à l'heure quand il dit que dëkk bi dana changer par force. Mmh. ça c'est de la témérité c'est de l'engagement yaakaar nag la mën a am mais man jàpp naa ne que effectivement. ils von ils vont ils vont ils vont apporter les réformes nécessaires pour mën a fair avancer la justice sénégalaise et cette justice là pan pilier la boo xam ni bu ñu ko lijjantiwul nii nii nii nii ak ñi fi jotoon jaar te ñooñu yàlla bu ñu fi jaarati. ñu mel noonu yàlla bu ñu amati Sénégal <laughs> ñooñu yàlla bu ñu falooti yàlla bu ñu jegee lu ñu <laughs> fu ñoo falooti te seen ay nit yàlla bu ñu am possibilité wu parce que dañu am capacité de de de de soppaliku duggaat bokkaat mhm. yàlla bu ñu bokkati parce que lu ñu dal ba ñuy agsi fii naan dañuy assise ou pas ñoom la donc jàpp naa ne que non man question boobu li ma si bëgg a répondre mooy li Pape Sadio doon wax gis nga application wala applicabilité loolu dépendrewul ci autorité yi ci Sénégalais yi la dépendre gis nga fi mu nekk nii Sénégalais dañu téye réew mi di ko doxalee ñoom ni ñu ko bëggee c'est-à-dire que sàng dafa wax benn wax bu am solo xeetu militant yi ñu doon am ak xeetu électorat bi ñu doon am dafa soppeeku léegi ci diggante bi maintenant Sénégalais yi léegi ñoom ñooy xool ni ñu bëgg seen dëkk mel ñu doxalee ko noonu te gis nga Sénégalais yi guddi gi ñu toll nii li ma gën a neex ci Sénégalais yi mooy dafa ñaar yoo xam ne mooy seen yitte ñaar mooy ak xam-xam. ak xam yooyu la ñuy njëkkante fi mu nekk nii. te jub boobu dafa leen jaral lu nekk. parce que avant ñu yegg si fii dañ cee ñàkk lu ne. dañ cee ñàkk lu ne ñu ne nag léegi plus jamais ça. c'est-à-dire que falati nit wala ñu fal ay nit bàyyi leen ñuy def lu leen neex. beneen bi mooy xam-xam dañoo gis ne li ñu dal yëpp ci wàllu euh, moo xam luubal moo xam. yenn problème yi ñu amul xam-xam ñu amul xam-xam ñoom lañ jox luñ leen luñ leen warta jox ñu def ci tey liñ ci def moo tax les sénégalais sont devenus très exigeants gis nga appliquer réforme yi nee naa la dépendrewul ci bon c'est foofu noonu sax même même et puis man man dama am bonne fois ci sax muy Diomaye muy Sonko parce que ñii xam nga la moo leen fal mais yoonu jub gi nekkoon moo leen fal buñ ko wàccee ñu buñ ko wàccee ñu wàcce mais mais je pense que moom sax nee na nee pour l' de des des quoi des les la là euh, réforme bu ci amul. Euh, incidence financière mm-hmm. rek moom moo mën a tax duñ ko appliquer. Mm-hmm. peut être dañ ko dàq ba jëm. c' est mais nag aussi dafa loo xam ni peut être ko fàttee mooy les réformes yi jëm. les réformes. Euh, dans le domaine de nos partenariats économiques les dans d'autres domaines dans plusieurs domaines dépendent en grande partie des réformes de la justice donc pour applicabilité wu mesures yooyu je hmm. pense que état bi mu ci gën a am intérêt et puis il y a de dossiers qui trônent sur la table du premier ministre en termes de redevabilité surtout la hmm. redevabilité économique hmm. surtout yooyu il faut une justice réformée avec de leur père d'abord peuple pour que ñu mën a vider ces dossiers là parce que fi ñu toll nii mënuloo Ousmane Sonko wax na ko keroog jar woon ma koy wax <laughs> wax na ne keroog ne il faut une pour que ñu mën a vider ces dossiers de détournement que justice bi nga xam dafi nekkoon nekk fi Macky Sall aussi justice réformée mooy le balai ah? Ah? il faut que le balai passe et le balai passera loolu mooy justice réformée <laughs> y a quelqu'un qui me disait hier am na ko mën a démb non balai bi dafa yéex na jël râteau moo gën a gaaw <laughs> non am na yooyu bàyyi de wala ko bëñ yi dañoo yaatu. ma ne ko imam de moom lay bañ a dégg bale bi dafa yéex. <laughs> ah non xam nga moi je pense que gars yi xam nañ li ñuy def. Mhm. Euh, te ñu ngi koy def ko xëy na nag peut-être que xam nga sénégalais li tax ñu yàkkamti man c'est la première fois ma dégg sénégalais yi ñuy naan dàq nit ñi dafa yéex quoi xam lu tax Sénégal dañu toj seen xol. waay toroxal bi ñu leen toroxal entre deux mille vingt jàpp deux mille vingt trois moo tax Sénégalais yi bëggatuñ lépp lu leen di rappeler Macky Sall bëggatuñ cee teg seen bët. en fait ils ont été voilà ils ont été traumatisés par cette situation là quoi mais xam nga sénégalais mosul mosul intéressé wu ci ay ñi dañ leen war a jële fii man c'est la première fois ma toog di dégg débat ñu naan ñi dañ leen fa war a gaaw a jële c'est la première fois voilà ils ont été les acteurs du combat. voilà wax naa ko saako fi ñoom la ñu tëj. tey loolu lañ ci am il faut que gars yi comprendre loolu. loolu la ñoom la ñu amputé. mais xam nga xam nga ki lay demandé ki lay demandé ay nit. du ay faute. du la baal mais Wade ñëw na fi Wade bi mu fi ñëwee mais xamuñ ku ñu fal ak ku ñu folli xamuñ ndax est-ce que les anciens du PS est-ce que ñu ngi woon ci biir yenn station yi wala xamuñ moo tax même boo xamul loolu sax li mu gën a favoriser rek moom mooy que ne la vie politique laa vie économique sa est tenté de se réguler xam la moo koy réguler. la doxa. Hmm. c'est-à-dire que la volonté populaire moo koy réguler xam nga xam Sénégalais yi tey jii ñoo ngi toog di xool ku ñuy nommé. waaw waaw gis nga gis nga chaque conseil des ministres sénégalais dañuy jël seen journal teg. non mais je te waaw kan la ñu nommé ak kan la ñu nommé wul. fan la fan la bokkoon fan la jógee fu mu jàngee. Ka Zakaria Camara. ya ya jeex na yaay régulation. mais ça a été gaa yi génne nommé nañ ko gaa yi génne bi mu doon saaga yi mu doon. mais véritable guérilla. véritable guérilla. mais le directeur du COUD est obligé de s'expliquer. mais mais mais non. il paraît que après sur appel du premier ministre. ah bien sûr mu mu génne benn communiqué pour s'expliquer même si par ailleurs le communiqué n'a n'a convaincu personne. waaw te xam loolu c'est avancé na. ñun et puis ensuite nos